nataal ñaar ak juróom ñeent bi yeesu nekkoon ci kaw suuf amoon na ay xarit yu bare waaye amoon na tamit ay noon yu bare yéesu neena ñaanal leen seeni noon te barkel ñi leen di buntu xatal bi ñu daajee yéesu ci bant bi mbir bu njëkk te mu def ko mooy mu ñaanal ñi ko def lu bon loolu ci loolu mu ne bàyyi jéggal leen ndaxte xamuñu lu ñuy def te yeesu daa bëgg xaritam yépp def ni moom bi muy dee ci bant bi ngir ñun ñépp moom xamle na ne ku bëgg doo def dara lu ñaaw sa moroom te bi muy ñaanal ay noonam ñaanal nañu ñun ñii ñépp ndaxte ñun tamit ay bàkkaarkat lañu tax soxla nañu baalum bàkkaar biy jóge ci yéesu ndaxte ñun ñépp ay bàkkaarkat lañu woon bu ñu xamul woon yéesu ba toppal ko nit tey kon nag ci loolu ñu ngi koy baalu di ko gërëm te di ko topp ci jéggal bi mu jéggal suñuy bàkkaar yépp far nañu leen ndaxte yéesu dañoo bëgg tu daa bëgg yow sa bopp nga bëgg ko bëgg tamit yow ci sa bopp nga bëgg ñeneen ñi mu bëgg nga déggook nit ñépp tamit xoolal nataal bi sa càmmooñ ñaari nit ñi bàyyi nañ di xuloo ka ŋaayoo te léegi ñu ngi dund ci jàmm te yéesu buggul nga delloo lu bon ki la ko def daa bëgg ngay def lu baax fépp foo nekk daa bëgg ngay toppatoo ñeneen ñi ci nataalu sa ndeyjoor gis nañu benn góor biy faj kenn ku am ay gaañu gaañu te nit kooku xamul sax ki muy faj ndaxte bokkuñu xeet waaye nit ki xam na ne yàlla ku baax la looloo tax moom ci boppam mu baax ci ñeneen ñi